di wax ni kon homme politique bi ki nga xamante ni dafa célèbre dafa am luñ ko war a traité ci prison bi ak ki nga xamante ni tey jii mhm. nii moom amul célèbre lu yaayam célèbre lu papaam daanaka la ko yóbbu ci prison moom mooy peut dafa tooñ wala parce que ñaar yooyu kese moo yóbbu nit ci mhm. prison am na ci ñoo xamante ne dañ leen a tooñ yóbbu leen fa mais am na ci ñoo xamante ne ñoo tooñ ñu yóbbu leen fa aussi donc boo demee bay différencier ñaari personnes yooyu noonu kon dama ni man a yor réew des na benn ñaareel ba ca des ñu di condition de vie yam yi dund mais Bougane Gueye Dany 48 personnes lañ ko booleel ak moom muy 49 personnes dafa gën waa Rebeuss ñi nga xamante ne ay personnes la dugal ci benn chambre ay personnes la dugal ci benn chambre ay 300 te pourtant ñi ngi ni patak organisé de te am na ci ñoo xamante ni xale dañ leen a tooñ jaay leen doole yóbbu leen ci kaso yii nii ba léegi ñu ngi fa léegi ñoom ñu ni Bougane ci ñaata dossier la ñu yóbbu woon ci kaw yoon ci yoon ñaata dossier yoo xamante ne ci focus lañ la jàppee. def nañ fa am na ci ñoo xam ne ci ay reetaan lañ mm-hmm. leen jàppee. ci commentaire lañ leen jàppee am na ñoo xam ne ci ay manifestation lañ leen jàppee mm-hmm. te pourtant seen ay dossier dañu leen faa teg mandat dépôt boo xamante ne xamuñu kañ la ñuy yëkkatiwaat seen i dossier mm-hmm. kon donc ñoom war ñoo xam ni yoon am na une semaine lañ ko wax une semaine pour ñu juger ko ñoom ñuy jooy léegi bu fa bàyyi woon seen dossier fàtte ko léegi ñoom lan la ñu war a mën a wax kon gis nga ñi ànd ak bugaan man dama ni bëgguñu bugaan. Hmm. pourquoi bëgguñu bugaan. bugaan ku ko waxul ni da tooñ. bëggoo ko tax te doo soppeem. parce que dafa tooñ ñaari yoon. premier tooñ bi mu tooñ te mu te mu waroon cee war a mun a nekk ci kaso bu metti mooy ba mu nee directeur FMI bu dakaar dafa démentir chiffre Ousmane Sonko ci lañ ko yóbbee garde à vue hmm. bàyyi waat ko mu ñibbi këram kon xam nga ni justice am na. Hmm. beneen bi si desaat protocole présidentiel. mu ni day dugg ci biir te loo xamante ni xale yu ndaw yi juddul sax xam nañ ni président buy ñëw tali bii da ngay gis ni force de l'ordre yi dañ koy baare dañ fay taxaw parce que président la ñu wax et le président n'est pas n'importe qui. Mhm. première institution du Sénégal. voilà mhm. lii bu nekkoon extérieur la leneen la ñuy wax ci Bougane donc kon ñii réunion nii muy waa gëm sa bopp yi muy waa atel muy waa sàmm sa kàddu yi réunion pour naan Bougane dañ kaa jaay doole Bougane dañ ko war a bàyyi mu ñibbi Bougane dañ ko sacrifier man ma ne ñoom ñoo sacrifier Bougane ñoom ci seen bopp ñoo sacrifier Bougane mais du Ousmane Sonko moo sacrifier Bougane mm. du Diomaye moo sacrifier Bougane du keneen ak keneen protocole bu présidentiel nit du ci dugg te eh, tooñul Sonko. Mhm. tooñul Jomaay institution la tooñ. xam nga euh, ay charte lañu am yu ñu teg. li ma ci gën a métti mooy li may wax tout le temps rek yow bu fekkee ne danga nga ne da ngay ànd ak nit ki. Mhm. te ñoom amul kenn même bu fekkee ànd nañu ak ñoom lan moo tax ba mu bëgg di réagir ñoom wàccuñu. kenn bokkum moo bëggaan ñoo bokkoon benn oto. Euh, ba ñuy pamti pamtee bugaan xam nga gisoo leen ko pamti pamtee bugaan fee la dem tooñ. fan lañ nekkoon. léegi après ñoom ñu jàpp bugaan bugaan tooñ ñu yóbbu ko pour corriger ko ñu faire la grande gueule. Euh, moo tax ma ne la dañuy génn pour figurer xam nga génn pour figurer ak génn ci li nga xam ne yow mii xam nga ne xel ne yow lii da ci am raison mais dañu la ko xañ la on pourrait comprendre mais ñoom li ñuy përti përti tëbaka dal mi Bougane doon réagir kon ñu ànd ak moom réagir. te nu bokk ci biir oto bi la nekkoon. Euh, voilà léegi Bougane mais gisuñu ko le président nee ko ñu ñu ngi dem bo ñu ngi dem Bakel cër na bokkum mu ngi ci woon ci oto bi. pourquoi néew ko ah bëggaan li ngay def nii du yoon de tegoo ko fenn ah, parce ah. que ñi ngi wax ni usman Sonko am na benn moment boo xamante ni Macky Sall dafa waroon am fu mu dem mhm. moom bëggaan Gueye Dany mu war a am fu mu dem moom Ousmane Sonko mu woo ko ni ko foo nekk mu ni ko fii laay nekk fii laay dem mu ni ko foofu président dafay dem bul fa dem gis nga nit ki booy opposé wu opposé wul booy politique politiqueal mais protocole présidentiel kenn du ci dugg mais tayef la rek ndey. tayef moo ko tay tayef la mënu ko. man je me suis dit que ko orchestré moo moo ko def moo bëggoon a kaso. moo bëggoon a bañ a fekkee élection yi su ko defee bu ñu amulee dara ñu ni. ñu ni ñu ni pouvoir bi ñoo leen sacrifié bu fekkee ne fayul impôt ñu ni ko tëjoon ci kaso bi gis nga lii muy def nii yëpp sénégalais yi soxlawuñu loolu. te mm-hmm. su sénégalais yi da ngay poser sa problème ñu génneel la résultat bala ngaa génne say résultat bopp. donc lii ñu koy nekk di ko wax waxuñu ko dëgg. Pape Djibril Fall waxoo Bougane Gueye Dany dëgg parce que waxoon ko dëgg mooy woo ko ba mu ñëw nga ne ko lii nga nekk yow yaa tooñ te yoon am na parce que une semaine lañ ni la dañ lay jugé bu ko ne woon retournel ci ginnaaw deux six mois ci ginnaaw deux mille personnes yu ñu yóbbu woon ci kaso yi mhm. jël leen mandat dépôt leen teg leen foofu noonu am ñu fa tëdd ay deux ans maire ami jam mii dekk député tey bokk na ci ñu tëdd deux ans ci lan. yaa gën na fa lool. am na ci ñoo xamante ne tëdd nañ fa ay un an. ci ab transaction transaction boo xamante tëdd na fa neuf mois keneen ak keneen tëdd na fa ay ati ati at. wala lu yar nga léegi voilà léegi yow Bougane ñun la une semaine lañ lay jugé sa waa coalition def seen conférence de presse di tëkkuwaate di menacer waate di saaga ay ndey. pour lan. mais mais seen réaction c'est normal lay seen réaction man parce que politique la encore une fois. gis nga nekk ci politique. yow. ci sa jëm bopp xam nga ne ñii ni ñuy doxalee xaajaatu xaaj bi jomaay du ko def. parce que bokk bokkuñu vision bokkuñu bokkuñu la pertinence de les analyses xam nga lan mooy am lan mooy am ba des ñoom ak mooy utilisation bi nga xam ne moom laa la wax keroog mën naa la mu dañ ko utiliser. Mm. même bu fekkee ne li mu def nii moo ko tey mais difficile prenons par exemple le cas de Barthélémy Diaz Barthélémy moo nekk seen tête de liste mm-hmm. Barthélémy Diaz au au dessous de moom gis nga ci yeneen sept personnes yoo xam ne moom moo nekk la huitième personne Bougane fan la nekk une neuvième neuvième position neuvième léegi yow comment se nga nekk tête de nga bokk ci benn groupe boo xam ne wala ngeen nga am benn liste boo xam ne yow yaa nekk tête de nga am kenn koo xam ne ci sa biir liste yoon daf ko daal di teg loxo mais yow gisuñu la fenn fenn dul nga bàyyi di daw di def ay saaga mais en quelque sorte miin moom man ne ñii ñoo yab askan bi. Euh, seen bopp la yeblu parce que dama jàpp ne rek askan wi ils sont assez conscients ci li nga xam ne mooy li am ci réew mi gis nga dépassé nañ période boo xam ne kenn ku ci nekk da nekk ci la neex di tabaka daal xëcc say pot di tëgg lu nekk nga dugg ci sénégalais yi. fekk lañ Fall dafa am benn leçon bu mu jox kenn mais kan mooy Pape Djibril nit nag di nekk ci dara nit ñi sopp la ca nga bàyyi ko def leneen naka te nit ñi bëggul la mi way ñëpp ko bëgg di dem ay concert mu fees dell ñu mhm. foog nit ñi bëgg nañ ko bëgg nañ ko ci loolu muy def mais tey ba mu bàyyi wee ni day def euh, leneen lu méngoo ko way dañ ko ànduñu ci ak yow moo dal Pape Djibril Fall te gis nga Pape Djibril Fall dafa damm carrière am Pape Djibril dafa yàq carrière am mhm. man Pape Djibril Fall toujours dama koy wax futur Sonko laa doon ko jàppee parce que nekku na nit koo xamante ni amoon na ambition euh, ba pare li mu daan wax da ngay sentir ni kii nit ku dëggu la mais xaw ma kan moo mhm. fat Pape ba nga xamante ni moo daan wax nit ñi di ko partager partagé ci réseau yi nit ñi di ko topp nit ñi di ko bëgg ci cohérence am ak pertinence am mais jamono ji Pape Djibril Fall ñu xam ndax Pape Djibril Fall ba ñu xamoon la wala beneen Pape Djibril Fall bi nga xamante ni tey jii nii dafa nekk ci ay bëgg-bëggam topp politique mm-hmm. te topp ñi nga xamante ni tey jii nii kenn faalewu leen ci politique amuñu benn poids électoral Pape Djibril Fall waru woon a topp Bougane ah est que jàppul ne politique mooy maanaam booy opposé wu da ngay wax loo xamante ne maanaam da ngay da ngay da ngay jaxasewaate maanaam askan wi ak seen seen seen. mais moom woon foofu bu fekkoon dafa la la ko. non loo xamante ne tey jii boo taxawee ba di ko wax. Hmm. Sénégal yi yëpp àndandoo ci naan leen dégg leen li diw di wax man gis naa ñoo xamante ne seen yéen nekkul ci politique mais dañ doon partagé démb di vidéo bi mu doon wax noonu. Hmm. le président de la république.

non mais Pape Djibril nawoon naa ko ci chroniqueur bi mu nekkoon. c'est-à-dire mais man musuma ko naw ci politique. jëlul uh-huh. ay responsabilités am Pape Djibril Fall musul jël ay responsabilités bañ ko doon wax naan ko Pape Djibril Fall fan nga féete ndax dangay ngay jàppale Macky Sall ndax doo jàppale Macky Sall lan la def. toog a toog a toog a a toog ba ñëpp fàtte waxi Pape Djibril Fall mu génn ni damay demal sama bopp mais na damay demal sama bopp boobu mu demal boppam lii dafa wane ni Macky Sall la mës a àndal lii dafay wane ni opposition bi la mës a Pape Djibril Fall dafa waroon a denc boppam xay Khayri dafa dafa dañ ko maanaam dañu gësam Pape Djibril faal mu wadd te ñorut Pape Djibril dafa waroon a denc boppam réserver boppam. Mm. Mm. mais mu dem ànd ak ñi nga xamante ni yow dee see leen dese nga dem ànd ak ñoom dangay dee ak ñoom. ñii des na tuuti élection législative yi ñoo leen fi bàyyi. bu élection yi jeexee kenn ku ci nekk di nga tal leneen doo loolu léegati man am na ci ñoo xam ne dinaa leen namm mais ca Pape waru woon a ànd ak ñii. dafa am loo xamante ne xeexu génération la. gis nga si xeexu biir xeexu génération boobu yow yaay choisir na damay nekk wala dootuma ci bokk ba illaa yow mi di c'est ça que saa yu ñuy tudd révolution biir Sénégal gis nga lii ñuy tuddee Sénégal gii fi ñu toll nii bu demoon ba développé hmm. am na ñoo xamante ne seen tur dootul fay ba illaa yow mi din bien sûr parce que dañuy naan génération ñoom Ousmane Sonko ñoom Bassirou joomaay ñi ci jàppoon ñii ak ñii ak ñii ñoo ci àndoon ak ñii ñoo defar Sénégal si jamono boobu nga nekkoon fi nag am potentiel bu rëy boo xamante ne waroon nga cee mën a bokk ci sa xam-xam ci sa ngëm-ngëm ci say valeur sa dignité sa comportement ak yar gi la yàlla may nga waroon ko cee investir bokku ca ñooñu mhm. parce que dafa am ñoo xamante ne ñoo fi nekkoon te yàq réew mi nga bëgg a bàyyiwaat ñooñu xoolal ñi nga xamante ne tey jii boo leen di xool ba ñuy politique yow xamoo sax lan mooy politique maa la ko wax nga fekk leen fi di jàng ba dem xam ba toog ci ay plateau di démonter seen i wax sénégalais yi bëgg la ngir yooyu yow naka sa faire jusque nga mën a arrêté waat loolu yëpp dem àndaat ak ñooñu nga xamante ne tey jii fu Sénégal duggu ñoom ñoo ko fa dugal nga gis ku mel ni Pape Djibril Fall gis ku mel ni Barthélémy Dias ñu ne woon ko lool bu taxawoon ci kanamu Ousmane Sonko ba sax ñu leen di tuddee ay doomu ndey. Mhm. ñu bëri jàppoon ne kii fu mu nekkee premier ministre. Mhm. kii war na faa mën a doon président de la république wala ministre de l' intérieur. loolu yëpp sénégalais yi amoon ko ci bëgg keroog ba mu taxawee wër lu mu waxoon bi ñu désœuvé désœuvé ci paasam. ne ay saagakat ñoo denc samay paas donc mhm. dinaa am jàmm mhm. gis nga ñooñu doon tuddee ay saagakat koo ci dekkoon micro ci biir mbooloo boo ko ko tàllalee du saaga maa la ko wax et pourtant Barthélémy Dias moo dem ba ci Tamba ci daal ko muy tifaar yi saaga mhm. ci ab leader bu siite ab tête de liste bi nga xam ne moom mooy sàmm say kàddu te ay kilifa nekk ci biir euh, coalition boobu fii ak vendredi nga ne war a demaat ci biir Euh, nit ñi di leen di naanaat man mi doon saagakat delloowaat leen ma am majorité assemblée nationale ay saaga lañ fa soxla wala ay xam-xam. xam-xam nga loolu doyu la nga woote waat conférence de presse ne waa Tamba le trente maa ngi fay ñëw bu dee nee ngeen nii bu dee nee di menacer ab dëkk ba nga xamante ne. menacer en direct surtout pour lan. ñi dañu violent. yow mi nga xamante ne ki ki ki ki ngay soutenir nee nañu defuñu yoon. nga ñëw soutenir ko di xàcciwaat di di di di di non kenn mënta comprendre position bi nga xamante ne tey jii moom Barthélemy Dias moom Barthélemy Dias mu ngi koy euh, def man moom Barth Barth keroog waxoon naa leen ko euh, physiquement physiquement Barth da nga koy xool xam ne dafa bëri xadar physiquement da nga koy xool nee na kaso bi ñu denc euh, ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany ay fas lañ fa doon denc donc foofu du pour nit léegi kon ba ñu fa daree denc ay nit ba tey kaso boobu kaso bu Tamba boobu ñu dala denc ay nit boobu ba tey ndax Bart mës nga toog ni fii kat waruñu fee denc ay nit. parce que ay animaux lañ fay lañ fa doon denc. démb caporal mi ngi ko doon wax Sénégal ñaari kaso la musa tabax benn bi pare na benn bi parewul kaso yëpp yi ñu fi musa teg kaso yi fi am yëpp. yenn yi ay armes fa doon denc yenn ay animaux lañ fa doon denc donc c'est normal parce que Sénégal ñaari ñaari kaso la tabax. ñàkk savoir wala ñàkk xam-xam moo ko yóbbu ci loolu mu wax noonu buggaan daal mooy nit ki warul dugg ci kaso boobu mais ñeneen ña fa nekk nga xamante ne am nañ yaay ak papa ak famille ñoom daal duñu ay nit ñoom daal homme politique yi cb célèbre yi ñoom ñooy ay nit bu ñu demee ci kaso yi dañ leen a war a jox néeg bu baax jox leen ay lal ñu tëdd jox leen ay téléphone ñu ñu yor jox leen ay livre ñu liir kaso kaso la ki sàcc ginaar ak ki tooñ ak sàcc nag ñoo ci ñoo ci bokk yam kaso kaso la Bougane mënul dem ci kaso boobu ñu di ko traité nañ ñuy traité ñeneen mel ni hôtel kaso du hôtel kaso pour ñu corriger la te Bougane dafa tooñ dañ koy corriger dañ koy corriger démb nee na moom mu ngi jéggalu moom Barthélémy Dias saaga boobu nga xamante ni saaga na ko askan bi mu ngi koy jéggalu parce que yaramam moo tàngoon parce que Sonko bi ñu ko doon wax delluwaat di wax ni buñ ko waxaatee Sonko dina ko def noonu donc kon moom jaru muy jéggalu nee na nañ ko jéggal mm-hmm. ci saaga bi ni waat waaye boo leen ma waxaatee Sonko Sonko Sonko ma jaaraat fu bon. waa léegi ñu taxaw léegi ñu baalu ñu la kon. léegi ñu taxaw buntu këram démb hmm? nag nu mu leen di def. ñoom kii. ñi ñi fa def foto Sonko ba. ñoom bàyyi naa la. waaw ñoom it bàyyi sa sa patriote tamit mën nañu tooñ de buntu kër jàmbur. gis nga kii ah. gis nga kii kii. buntu kër jàmbur yéen tamit gis nga kii. moom ba moom Barthélémy Dias mi man Bart Bart sérieusement man bettu ma Bart bu taxawaatee saaga suba sax du bett. du ma bett parce que nee woon na fi Abbas Fall Dakar duñ ko jox ku loxoom setul loolu la fa wax keroog. Mhm. Abass Fall man maay borom ndakaaru te Dakar duñ ko jox ku loxoom setul moom ay loxoom moom set na wecc ndax tudduñu ko ci crime condamné wuñ ko ci crime amende duñ ko ci crime li nga xamante ni moom la fi defoon te kenn fàttewu ko moom du moom Barth defu ko de parce que ay loxoom dafa set nee na comme kay nag yow mi nga xamante ni yaa mën a tiire nit mhm. say loxo moo set astama ki nga xamante ni kenn mësu koo dégg mhm. ci yëfi jàmbur kenn mosu koo dégg ci doxalin boo xam ne neexul sénégalais yi mu dellu si waat moom Barthélemy Dias ni Bougane dañ ko jàpp en otage yéen ñi yéen a jàpp Bougane en otage yéen yéen a sacrifié Bougane pour seen ay élection yéen yéen a woon a dem ci élection yi moo tax ñu jël la pur nekk ci sa ginnaaw bokkoon ci élection présidentielle yi ñu def la tête list di toog di xaar ñu ni Barth mënul dem list ba dañ koy invalider bu ko defee ngeen ubbi rajo yeeg télé yi nii ñun dañ ñoo jaay doole far yàlla nag ñu bàyyi Barth mu bokk ñu am ci surprise bu ngandang ngandang ngandang ngandang Bougane lii mu def yéen ko ko sant parce que bëggoo leen dem ci élection yi. bëggoo leen fekkee campagne yi si mooy sarax bi. Ah, fekkee ne da koo nangu de xamatuma daara ci Bougane kon est-ce que du mujjee bàyyi politique. la ñu di sacrifice mooy Bougane. Ah, mu bàyyi. moom moo nangu tëdd. bu fekkee ne dafa dafa nangu ñu utiliser ko. mais Barthélémy Dias moom bu nekkee tëdd liste combat bi moom moom la gën a concerné que Bougane. lu tax moom demul. dañ ko cee gisul. lan moo tax ba ñu yóbbu 60 pagu eau de ah, javel yi moom Barthélémy Dias du tax demul. ñoom seen fit lañ dénk. lan moo tax ñu choisir même jour que président jour dem. Euh, mu bañ. xamoon na lu a fekk. gis nga Bougane moo la gën a xam ne protocole présidentiel kenn du ko kenn du ko xët. moom moo la ko gën a xam Bougane daal ndey li ma la wax rek moo ci nekk bu génnee na xoolaat boppam xool ñi ko jege xool ñi ko entouré parce que atel gii na ci rocceeku ndax duñu ay nawleem ñan ñoo doon ay nawleem sa kàddu lu ñu ay nawleem de. coalition waaye loolu loolu du coalition. mu xëy di mu xëy di bu ma merloo. loolu du coalition. ah Khalil waaw loolu nu mu nekkee coalition. nu mu dul coalition. bi ma gisoon mu doon coalition xoolal Yewwi Askan bi ñun dañu àndee. Mm. fépp foo gisoon moroom ba jàppuñu leen fii ci benn ngoon ñoom ñëpp. Mm. ànd boole ay ñoom Aïda ak ñoom ñooñu ñëpp ñu téye leen fii nii. Mm. ànd boole weddiwante. waa léegi naka nga naka nga mën a jàppee ne ñoo ñoo bokk lii gëm li ñu gëm à chaque fois bu ñu ne wootee conférence de presse trois yi ñoo ñëw quatre yi duñ ñëw bu ñu waree dem Bakel trois yi ñoo ñëw quatre yi toog fa kër bu ñu fa waree jàpp kenn kenn fa la baraxal rek ñu téye ko ñeneen Bougane moo porté wu volontaire kat ndax xam nga ne lii même bu fekkee dañ ko sant xamoon na li ko ciy fekk Bougane sénégalais la yàgg na ci yàgg na ci réew mi bu ñu àndee yow dama ne bu ñu àndee yow ngay def lu naka sudul noonu dama la na ñoo bokk li ñuy dama ne na ci réew mi xam na luy protocole sécuritaire bu président de ñu ne la fii doo fi dugg parce que moom xam na ne bu bu nekkoon buntu këram président war a am protocole foofu moom day taxaw xaar président jàll ba pare kon xam nga ne loolu moom xam na ko bu baax en âme et conscience xam na ne li mu def il a fauté léegi nag bu fekkee ne yow dangay ngay jaay ne yow yaa rëy fit ñii nga xam ne il non amatul dara loo xam ne mën nañ ko am ci wàllum politique mm-hmm. may borom Dakar ak may borom Pikine élection yi ñoo koy lijjanti léegi nag yow nga nekk tëdd liste ngeen nga ñu yow sa borom xaw ma sa sa ki la jiite tëdd liste nekk ci kaw moom ak ñeneen avec les sept autres personnes yoo xam ne ñoom ñoo la jiitu nekk ci kaw mm-hmm. ñu bàyyi la nga dem bu heure génnee bu heure génn jotee yaay génn bu heure wax jotee yaay wax bu président génnee wax suba ñu ne la yow la ñuy conférence de presse la moo tax ñoom duñ dem te nga bokk ak ñoom loolu ah, ah, mooy li may wax. te te ah. maa ngi dégg Anta yi naan yëf yi du doole fii la. waaw xanaa kon fii bi Bougane di def loolu lii dafa réeroon. ah est-ce wax nañ ko ne mbir mi ci xel la. liñ def yëpp A ba Z. seen ay plan la ñoo ko teg ma ni fu ñu bëggee dem élection yow ñàkk bañ a dem élection moo par la force ci moo tax ma naa ne yëf yi buñ ko tegoon ci politique. Barth warut a moom sax wax na ko ah. moom moom Barthélémy Dias wax moom waxal na ko boppam mhm. moom foogoon nañ ni moom Barth du dem ci élection yi dañuy invalider list bi bu ko defee ñoom ñëpp ñu toog loolu lañ bëggoon mais far yàlla nag conseil ni leen man mënuma ko génne tant que ministère bi nga xamante ne moom ministère de l'intérieur ñoo ko waroon a génne ñëw na ba mënuma ko génne mhm. basé wu ngeen ci seen article basé wu naa ci samay article Bart da sëgg bëri ni ñëpp loolu moo leen bett ñu ne nag comme kay plan A échoué na mm. kan la ñu jàll ci plan B président kañ lay dem Bakel ñu ne président day dem Bakel Bakel jour temps ñu ne ñu dit ñoo leen jàpp même jour bu ko defee bu ñu demee dajee faak moom lu mu teggi ñu teg bu ko defee bu ñu demee bu ñu nee wàcc leen mi ngi ñëw ñu ne ko wàcc ñu ñun tamit dañoo nekk ci suñu ay droit mais le président de la république moom président Bougane la président Barthélémy Diaz la président sénégalais yépp la politiqueul Sonko mooy politique en tant que chef de parti dem leen ngeen tibbi tànkam dem leen ngeen tibbi tànkam fi ñu toll nii leneen moo leen doy leneen Barthélémy Diaz nee na mi ngi woo Ousmane Sonko ci euh, débat publique boo xamante ñoom ñaar dañ koy dañ ciy waxtaan fi toll nii kenn ku ci nekk yaa ngi xëcc sa nawle maa ngi dégg ñu naan moom nañ ko jox euh, Abbas Fall wala nañ ko jox keneen comme kay moog Abbas Fall fi ñu toll nii ñoo tolloo doole nañ leen boole ñoom ñaar mais Barthélemy Dias ci boppam moo amul benn compte bu mu rendre les Sénégalais mm-hmm. parce que lii mu lii mu nekk Sonko ko ko def Sonko ko ko def moom moo fi toogoon ne bojo bojo yee seen bàyyi ñëw na seen baay kan la Ousmane Sonko la. ah waaw donc kon moom seen baay Ousmane moom baay Ousmane Ousmane Sonko mooy baayam. ci juróomi ah, la bokk bu changé papa mais léegi kon bu tourné di wax naan. dama ne daa changé papa bu tourné di wax mu ngi ci jàppam bugaan bi lan moo ci seen yoon. dama ne Barth daal moo ne woon. daa bàyyi daa bàyyi Sonko voilà. moo ko fi doon wax doomu ndey doomu ndey. waaw dafa changé papa tey mu koy traité de mouchoir. dafa changé papa di koy traité de charognard. tey bu naan bugaan frère kon suba est-ce loolu de am na fi. ah gis nañ fi moom Ousmane Sonko. <laughs> waaw longo bi sama doomu ndey la sama doomu ndey la. Mhm. ba ne Ousmane ko élection yi. Mhm. boo fa jaarul du ma gañe Ousmane daal tàllal leen loxo ñu voteel baat ñu voteel baat. donc mhm. kon fa mu nekk baat moom moom moom Ousmane Sonko moo ko feteg teg. tey nag bu fekkee ni moom jéggi na doomu ndey di woowee Bougane frère. suba mun nañu gis ni mu woowee ko leneen wala mu traité ko de charognard comme nu mu koy defee. Ah, ah, comme kay moom ah, kaddu bu ñaaw yëkkati bu ñaaw ci Barthélémy Dias la fekk baax. ci moom la njëkkee di. saaga ci Barthélémy Dias fekk baax mhm. voilà day saaga fi lañu fekk aussi tout le temps day saaga Barth respecté askan bi respecté wul sénégalais yi yow taxaw devant tous les sénégalais ni ku ma tuddal diw ma jaaf ñaaw kan nga saaga sénégalais nga saaga après nga retourné nii nay sénégalais nañ la baal mhm. ah dafa am lu ko doo saaga waat buñ la baalee dafa am lu ko metti xam nga lan moo gën a metti lan moo ko metti nekk ci mbir di kër ti kër ci jàpp ne diw mii mooy sama morom wala diw mii mooy sama nawle mhm. kooku génn la loolu rek échec la pour ñoom li ñu ko li xoolal li ñu li ñu fi def. conférence de presse li ñu fi waxtaan. li ñu mhm. fi génn li ñu fi tibbi tànk. li ñu fi wax yëpp Ousmane Sonko génn ne Amadou Ba kaa ñu def débat. c'est-à-dire moom mooy le chef de position moom la war a waxal moom mooy sama nawle. Mhm. léegi ña doon tëb di dal yëpp dem leen toog yëf yi du yéen. Mhm. parce que amoo leen responsabilité li ngeen di wax xamoo leen ko seen wax teguwut ci ay diffamation ngeen nekk. ci koo xamante nag mu ngi wax ci ay chiffres. Hmm. di wax ci loo xamante ne xam-xam na parce que Ba lu ñu mënta wax am na loo xamante ne xam na ko. Ah, ah, te am na loo xamante ne tamit nañ ko ay responsabilité ci li nga xamante ne premier ministre wax na ko. Hmm. kon kooku nag war naa mën a nawlanteeg moom ci ay débat politique. Hmm. parce que yëf yi ci ay débat d'idée la war a tegu wala waratul tegu ci président moo wax li war a dama war a demoon fii nii amatul sécurité ñoo war a tëju fee ak kañoo ak ak ñoo woote arène nationale loolu ay détail la ay fee la dund nañ ko ba pare ku ko mhm. mën na ko def c'est ça loolu mooy am importance waaye leneen la ca des mooy bu fekkente ne ay idée rek lañ bëgg a waxtaane mhm. nañ ko teg te waxtaanee réew mi ñu pencee ko ba xool. Mhm. xam nga Ndeysu. le cas de affaire bi daf ma xaw a choqué. mun la moo tax mu choqué ma. Barthélemy Diaz je me dis ci woon. Mhm. futur politique am le pourquoi man dafa yàqamti woon futur politique am mhm. yéen a ngi koy wax sànq bokk ak Ousmane Sonko ay meeting bokk ak Ousmane Sonko di dem campagne ñu gis leen fépp ñoom ñaar mhm. jékki-jékki créer benn benn dispute ci seen diggante ñu naan Ousmane Sonko moo trahir ñun ñu naan Barth moo trahir léegi ba loolu yëpp amee moom Barthélémy Dias je me dis que ne bu amoon patience il a manqué de patience ñàkk patience bi weesuwul nga ànd ak nit di xeex ànd ak nit di xeex ànd ak nit di xeex ba dara desul élection présidentielle war a jot. déedéet parce que man je me dis je me dis que ne. boobu na Sonko. exactement waxtaane ko foogoon nañ Ousmane Sonko Ousmane Sonko dootul bokk dootul bokk élection. mais malheureusement pour lui malheureusement dañ koy dañ koy fàtt ci prison exactement malheureusement pour lui xam na mu jàpp ne Ousmane Sonko bu bokk bokkatul kon lépp lépp day yàqu. <laughs> Sonko. l'homme qu'il est mm -hmm. il a il a placé Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la République à sa place sénégalais yi ànd votel ko man wóor na ma ne. ba ñuy ba ñuy votel ba ñuy teg Diomaye pour ñu ci de liste. Mhm. pour mu bokk ci élection présidentielle yi fan la fekk Diomaye du ca kaso ba la ko fekk léegi nag Barth li ko nax dafa bëri moom mm-hmm. waxtaane nañ seen kuréel googu nga xamante ne mooy kuréelu Macky Sall bi parce que moom papa mu ngi woon ci Macky Sall mm-hmm. waxtaane nañ ni dañuy dañ koy faagaagal moom Ousmane Sonko parce gisoon nga ay ay ay menace de mort nga xamante ne mm-hmm. amoon nañ fi ay nit yoo xamante ne génnoon nañu ni jox nañ leen ay milliards pour ñu def dara Ousmane Sonko ñoom foogoon nañ Ousmane Sonko dañ koy daal di taxañ sànni ko kaso bi daal fa la fa la mooy nekk këram. Mm, bu fekkee ci rafetal mooy li may wax rek. mooy nekk këram donc kon looloo moom Barthélémy Dias ci mhm. loolu la loolu moo ci moom loolu tokk ci noppam. Mhm. mu ne Ousmane Sonko pare na ci langum politique bi. mooy léegi man duma ànd ak daanu. naa dem rangé wu ji. loolu mooy yàqam ci gi may wax gis nga ndeyes dafa am lu am ba des nit ki booy ànd ak moom nga jàpp ne danga nga bokk ak moom benn conviction dafa am ñaar yu am nag àndandoo googu nga àndandoo wala xaritoo googu ñuy wax mhm. soit da ngay xaritoo ak ki nga xam ne vous avez les même ambitions vous avez les mêmes visions vous la même option. Mhm. mooy jëmale Sénégal ci kanam te mu nekk dëgg ci moom. Mhm. am beneen personne bi nga xam ne aussi day woote loolu yëpp or que ne xam na ne moom lii muy def nii boo gañee ma ànd ak yow boo perte ma ànd ak keneen. Mhm. Mhm. donc je me dis que ne Barthélémy Dias dafay yàqamti mbir moomu parce que yàqamti weesuwul yow Ousmane Sonko le fait que mu nekk prison il a incité aux Sénégalais à ce ñu ànd ak yow parce que lan la da nga doon woote li nga xam ne mooy jàmm ak njëriñ goog nga xam ne tey Amadou Ba moom la wekkoo di woote li nga xam ne mooy justice bu équitable ci Sénégal parce que période boobu ñoom ñëpp ñu ngi woon ci fitna mhm. kenn sañul woon a wax kenn sañul woon a def parce que ba ko defee prison la lay yi nga xam ne ji ñoom dañ leen a jaayoon doole tëj leen ci donc je me dis que ne personnellement il avait cru que ne euh, le fait que Ousmane Sonko nekk en prison dootul am benn benn doole ci population sénégalaise bi or que ne boobu sénégalais yi justice lañ doon wër sénégalais yi lu transparent lañ doon wër. Mhm. mu rocceeku ndànk dem toog. Bougane bañ koy tëj. man loolu lay woowee yà Barthélémy Dias yàqamti. Bougane bañ koy tëj nii. ñaata nit lañ tëj. bëri na. bañ koy tëj nii. Hmm. instant bii waaw bañ koy tëj ñaata nit lañ tëj. yi àndoon ak moom waaw. ah gisaguñ kenn. Mm. gisagoo leen kenn. Mm. gisaguma kenn Ousmane Sonko bañ koy tëj ñaata nit lañ tëj. ban kay benn deux mille. ba pare teg ci Ousmane Sonko. teg ci ay benn par benn. benn par benn deux mille personnes lañ Jomaay. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi Bougane Gueye Dany bañ koy tëj. moom dong lañ tëj. ñamu bokkaloon parti bokkal ak ñoom mouvement dañoo ñibbi seeni kër donc kon ñoom ñu xam ne li ñu xeex baaxul parce que ba nga xamante ni ne son ko ba muy xeex jeunesse boobu daf leen a jaraloon ñu génn parce que ni ñuy gouverner seen réew neexu leen système bi ñuy doxalee réew mi neexu leen ni Macky Sall di gouverner ak gouvernement neexu leen ba tax 2000 personnes dem ci kaso mais Bougane ba muy dem kaso kan la àndal kenn. mais Bougane il dem kaso bi sax day sori. ba mu ba muy xeex di affronter gendarmerie kan ak kan nga gisoon kon ñu xam ni. c'est ça la question. dañuy xeex sénégalais yi ñu ci. vraiment yi dañuy xeex ànduñu ci ak ñoom. ñoom ci seen bopp ñooy ànd ñooy def conférence de presse tey man j'attendais à ce que ñu ne ñoom dañuy def mobilisation dañuy def marche. ak kan yow Bougane mi ngi nekk ci tolof tolof. Mhm. Bougane ma ngay dund ay jaxan na ma lay dund comme ni ñu ko waxee. Mhm. Bougane a ngay sangoo ndox bu tàng ma ngay lekk lekk bu bon ma ngay tëddandoo ak 48 personnes. Mhm. yow Barthélémy Dias taloo loolu lépp nga di Sonko débat laa lay woo mais est-ce bëgg nañ la. Ousmane Sonko bañ koy tëj boobu jeune jeunesse baa ngi mobiliser wu bu fekkee ne dañ leen a tere woon seen ay manifestation ñu ngi doon mobiliser di def remuer ciels et terres pour wane ni seen mécontentement mais Bougane Gueye Dany yaa gis ku ko mobiliser yaa gis ku wàcc ci tali bi yaa gis ku ko xeexal hmm. seen coalition bii conférence de presse bañ def démb du lépp waxi Bougane la wax waxi politique lañ doon wax ak seen waxi bopp Barthélémy Dias ba mu jéggaloo ba pare lan la ci teg Ousmane Sonko laa laay laay woo ñu def débat public donc kon Bougane ñaru ko Bougane bu génnee dafa war a xoolaat remettre en question léppam def autocritique toogaat mu ni man fii ma jëm nii ñii nga xamante ni mooy Anta Babacar Ngom mi nga xamante ni force bi nee na euh, du du ci doole ci xel la këram la fanaane ci njabootam Barthélémy Dias këram la fanaane ci njabootam mhm. Thierno Bocoum mi nga xamante ne ànd ak ku ne àndu nag ku ne amul lenn lu na bokkum defal Sénégal ba mu dalee nekk ci mouvance présidentielle ba mu dalee nekk ci gouvernement ba léegi ca na bokkum amul benn pas d'avancement fi mu nekkoon démb fa la nekk tey chaque jour ci ginnaaw nit lay boot dafa ñibbi këram dem tëddi mhm. ba ñu jàpp Bougane ñoom ñaar ñoo bokkoon benn oto lan mooy réaction toog na lee la def di seetaan Bougane ñu yóbbu bañ na ko ba moom toujours nit da koy jiital Anta Babacar moo doon wax moom lu Anta Babacar wax mu for ci wax nekk góor bu ñuy jiital donc Bougane war na xam ne ñii bëgguñu ko war na soppi doxalin te xam ne dafa am njaboot bu dara xewul na yërëm njabootam te yërëm njabootam dafa am famille xam nga parfois damay wax ni yenn parents yi dañuy tooñ lu seen famille dañuy tax ñu yëkkati ay kàddu di ko teg seen famille yoo xam ne kenn waralu ko ku dul ñoom bu gànna xoolaat boppam lii muy dund kenn yéenewu ko sa noon kenn yéenewu ko sa noonu an maa astamaak moom mi nga xamante ne du suñu noon yéenewuñ ko ko mais bu génnee na xoolaat boppam mm-hmm. na xoolaat ni muy àndal ni muy àndal ni bëgguñu ko de bu dañ koo bëgg bu génnee ba xool seen conférence de presse bi yaakaar naa ne dina ci jàngat te dina ci jëlee lu bëri. ah yaakaar naa ko kuy woo Ousmane Sonko ci débat moom. te waroon toog foofu. dañuy wax ci leneen. Mhm. mais même pas de woo son Sonko booy seetlu keroog ci ci ci ci ci bi ñuy déglu Mbougane. oui la nga fay dégg yëpp déggoo waxi Mbougane. bëggoo ko. mi Dias nga fay dégg parce que moo fa créer incidence moo xamante ne tey jii. asalaamaaleykum tuuratuñu sax tuuratuñu. Khalil euh, ñu jël appel bi salaamaaleykum mbokk mi. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. amoo retour. dafa mel ni amuñu retour. donc euh, ñu avancé jëm ci Déthié Fall. Euh, Déthié nag euh, gisoon ngeen nii moom it bokkoon na ci ñi nga xamante ni nekkoon takku wàllu wàllu Sénégal mhm. daal di woon na fa génn nag la ko fa indi bokkoon ci ab réeróo boo xam ne rek ameel na ko parti boobee daal di nag demoon ci sàmm sa kàddu asalaamaaleykum. allo oui. oui sëñ bi tur ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Khadim Rasoul Seck maa ngi woowee Dakar foo ñuy woowee. maa ngi di woowee Dakar. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Daouda bu mu nee dugg génnaat. ayca ñu wëyal dem ci Déthié Fall rencontré woon Ousmane Sonko ñoom ñaar toog nañu waxtaan ci ay kàddoom waxoon na ni dinañu wax ana ñoom ñaar lan lañ fa tënk hmm. waaye nag nee na ci deux heures de temps daanaka def nañ fa tour de temps hmm. euh, de l'Afrique maanaam moom Déthié Fall euh, ni moom la yàggoon a hmm. moo nekk ba léegi na moom demee def rencontre euh, boobee gis na ni même Ousmane Sonko moo nekk foofu gis na ni même Ousmane Sonko bi nga xamante ni moo nekkoon xaritam moo nekkoon doomu ndeyam moom lañ mhm. daan partagé lu bëree bëree bëri engagement am ci Sénégal ak bëgg gi mu bëgg Sénégal ak fi mu bëgg a yóbbu Sénégal ba léegi mu ngi ci moom mhm. ca noonee nag la daal di décidé daal di jógee sàmm sa kàddu dem euh, soutenir Pastef bi nga xamante ni foofu këram la comme lu ñu mhm. wax euh, bi vrai que ni ay malentendu euh, amoon na ci waaye nag këram la moom Déthié Fall daal loolu la daal di xamle nekki tey bon kii leesu oui dafa am jël appel bi ba pare. asalaamaaleykum. maaleykum salaam ça va soxna merci sëñ bi. naka yitee. ñu ngi sant bu baax tur bi ak foo ñuy woowee. maa ngi maa ngi tudd Khadim Rassoul Seck ba di woowee Dakar. Aïcha dalal jàmm ci biir Allô Sénégal seen biir émission à ah, maa ngi leen doon bàyyi xel boobu léegi. ay ca ngi ci biir. actualité bi xew tey entre euh, coalition euh, Sàmm Sa Kàddu. oui Déthié Fall et nekk Tamba. Mhm. mais gis nga nit nit ki lépp loo dugg te xamul ni nga ciy duggee finalement da nga ciy génnaat te doo xam noo ciy génnee. maa la ko wax. Mm-hmm. Euh, ñoom ñi ànd ñëpp. Mm-hmm. bokkuñu ay conviction c'est ça. bokkuñu ay intérêt. Mm-hmm. bokkuñu ay gëm-gëm. finalement ay mag yu ànd di man kenn ku ne di manipuler sa bopp. fii lay mujj balaa élection yi ñëw coalition bi day tas. a kenn nga ci mën a xool koo xamante ne da nga kii am na gëm-gëm ci li mu nekk te mooy Déthié Fall te moom ci. moom it dem na Bougane Gueye Dany Anta Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall mhm. bu ma doon ñooma dañuy lem seen i bagage dem toog surtout nag Bougane Pape Djibril Anta Babacar mhm. parce que ils ont pas de politiciens mhm. ils ont pas de politiciens di occupé média bi lu lañu toog fi di expliqué di wax te li ñuy wax teguñu ko fenn amul benn xam-xam amul amul Sénégal benn intérêt mieux vaut ko ñu bàyyi dem toog kenn ku nekk nekk sa la nekkoon boo Bougane gérer entreprise Mhm. Anta Babacar nekk ci li mu nekk. Mhm. Euh, Pape Djibril Fall dem nekk journaliste bi nekkoon. mu mhm. ëpp importance foofu. c'est ça yi ñuy jéem a kéré nii jéem a indi problème ci dëkk bi jéem a indi nit ñi ay situation yoo xam te ne dépassé woon nañ ko. jaru ko. oui état bi mënoo ko fal démb. mu commencé liggéey tey. six mois yi mu fi defoon xamul huit mois mu tegal la lu leer expliqué loo xamante ne mën nga si jàpp. ba bëgg a taxaw fii tey di créer situation yoo xamante ne mën na ñàkk. li ma si gën a naqari mooy yenn